kon mbokk yi alhamdulil alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala di dajewaat tey ci ab néegam ngiree mën a jël benn bind ci lu aju ci lii leeral suñu diini ñu tuddee ko fiq di sukkandikoo ci téere bi nga xam ne moom la ñu tuddee ar risala bu ibnu abi zayd al qayrawani ñu war a jël tey fanweereelu bunt bi ak juróom benn na am ñu ngi woon ci fanweereelu bunt bi ak ñeent wara na jël fanweereelu bunt bi ak juróom waaye bunt yooyu dafa nekk ci loo xam ne daanaka itteelu tuñu lu bari looloo tax ñu bëggoon dal fanweereelu bunt bi ak juróom benn baabun fi shufaati wal hibba wa sadaqa bu dee yow mi yor samaru daani bi yaa ngi ci page cinq cent quarante neuf su dee traduction bu xonq bi mi ngi nekk ci page quatre vingt huit muy trente sixième baab bi rek fanweereelu bunt bi ak juróom benn ak téere boo mën a yor baabun fi shufaa wal hibba comme mbokk yi ni ñu leen ko waxee fa nga xamee ne nii fa la ñu yemoon ci suñu bind yële passé mi ngi nekkoon ci buntu fanweeri la bunt bi ak ñeent nga xam ni dafay jàngale lenn ci wàllu njaay ba ñu waroon a yegsi fi ñuy waxee walqiraadu jaizun biddananir lañ ca mën a tënk ci ñaari bunt yooyu ñu bàyyi mooy la ñuy tudde alqiraad qiraad mi ngi gën a siiwe ci li ñuy tudde mudaaraba lan mooy mudaaraba wala qiraad mooy waa ji day am alalam keneen am pexeem mu ne ko jëlal alal ji nga dem liggéey bénéfice bu ci juddoo ñu séddoo bénéfice bi selon ca la ngeen ca d'accord loole dañuy gis ne bu dee ne loole dañuy gis kon islaam dana daganal loolu lu dul ne day wax ne du nekk nag lu dul ci xaalis du nekk lu dul ci xaalis masalan bu doon marchandise la waa ji da nga koy jaay loo di ko fay ñu ngi noonu amma li ñuy tudde mudaaraba loolu xaalis la mën a doon nga xam ne xaalis bi temps la cent mille la un million la moom mu dem liggéey ñoo xool dat sàngam bu jotee ñu seet bénéfice ba ca nekk ñu séddoo ko loolu da ngay gis ne bunt bu am solo bu doon jàppale rawatina ndaw ñi allahuma lu dul bunt la boo xam ne dafa laaj ak maandute te bokk na nattu boo xam ne ni dal nañu mooy gis ku maandu ba nga jël sa alal di ko jox muy liggéey ci wàllu googee loolee lu jafe la waaye islaam ubbi woon na ko ngiree mu nekk dimbalante bu am solo bokk na ci fanweeri lu bunt bi ak juróom bi ñu bàyyi luñ ca mën a jël li ñuy tuddee al wasaaya wasaaya moom mooy dénkaane islaam dana may doomu aadama bi ci alalam mu ne su ma dee nañ ci jox joxe nangam ci place sangam islaam dana nangu loolu bu ko defee yaa ngi dund ak alal ji boo dee ñu doog a jëfe loolu ñaar la ci lislaam di tere mooy ña ngay wax nañ leen jox bu ñu bokk ci ñiy donn loolu moo tax ba sooy jàng alquran da ngay dégg suñu borom mu ne kenn ci yéen buy dee in taraka xayran alwasiya lil walidayn wal aqrabin na def testament ñeel ay waajuram ak jegeñaale yi waaye sunna moo ñëw teggi loolu yonent bi alayhi salaam mu ne la wasiyati lil waaris ki nga xam ne dafa am cër bu ko yàlla jox ci ndono yow it amoo droit naan su ma dee nañ ko jox nangam kookee na nekk way jur la doom la soxna la wala képp koo xam ne bi nga dee am na cër ci sa ndono ñaareelu mbir bañ cay tere mooy bu mu paase ceeru alal ji bu mu paase ceeru alal ji heure boo xamee ni nii ne woon nga masalan su ma dee day sama kër sàngam nañ ma ko joxal diw léegi bi nga dee ñu estimer kër gi estimer sa alal kër gi ëpp ceeru alal ji dañuy delloo wasiya ba ba ci ceeru alal waaye nit ki faatu alalam amul droit maye ko lu dul ceer ba la ca des ay ndonoom ñoo ko moom da doon daa jubóog ñoom daa xuloog ñoom ak daa nangam ak ñoom ala kulli xaal ay ndonom ñoo ko moom loolu nag mooy lu lislaam may doonte ne bu ñu delluwaatit yonent bi daana wax wa sulusu kasiir ceer lu bari la looloo tax ba lu bari ci borom xam-xam yi lañ gën a bëgg mooy booy def wasiya mu nekk sa kaaru alal bàyyi nga 4 millions 1 million ba mën nga def wasiya bàyyi nga 4 milliards 1 milliard ba mën nga ci def wasiya te la nga xam ne neex na la loolu ñu bàyyi ci xel bu baax amma bu defoon ceer ba it ña nga xam ne ñoo koy miraas amuñu droit tebbi loolu loolee mbokk mi ngi noonu bu dee fanweeri la bunt bu juróom ak bi ma tëb lépp mi ngi wax ci ak njaam nuñ ko war a taxawee ci goreel ca jaam gannaawam ki seeg jaamam nu mu war a doone yooyu mbir la yoo xam ne comme ni ngeen ko xamee la ëpp tey ci àdduna bi loolee amatu fa état yépp tey da ngay gis ne nangu wuñu la nga xam ne mooy ak njaam jaam boo xam ne dañuy dem di ko jaay ca marché baak di séddale di ko miraas ak daje amul benn état tey ci àddina bi bu ko nangu loolu kon mi ngi noonu moo tax ñu ne ngiree gagner du temps nañ jël rek dal ci bunt boo xamee ne nii jàpp nañ ni ñun ñëpp dinañu itteel muy fanweeru lu bunt bi ak juróom benn kon incha allah ñu jël ci suñu bind bu jëkk day wax ne lii day baabun la fi shufaa bunt la ci ka nga xam ne da nga siq ak moom benn mbir mu bëgg a jaay wàllam droit ba nga am ci jël ko loolu la ñuy tuddee shufaa wal hiba mooy bunt buy jàngale nan la lislaam gise ak may wa sadaqa nan la lislaam gisee lii nga xam ne mooy sarax wal xubusi lan la lislaam gisee li gën a siiwe ci waqf ca mooy alal joo xam ni yow mayewoo ko mu dem waaye da nga koo taxawal nit ñi di ko jëriñoo ba ba muy yàqu wa rëhëna ak la nga xam ne mooy garantie mbir ca la ngay leb wala lu mën a doon wala aariya ak la nga xam ne mooy wàllu abalante nan la ko lislaam gisee wal wadia ak wàllu ñëw dénkaani na ko lislaam gisee wal luquta ak la nga xam ne dañ koo for nan la ko lislaam gisee wal xasb ak waa ji nga xam ne dafa këf alali doomu aadama forcé ko jël alalam nan la ko lislaam gisee lii mbokk kon mooy juróom-ñeenti mbir yi nga xam ni incha allah mi ngi la ko bëgg a jàngal ci bind bi nga xam ne ci la ñu toll kon bu ñu continuer mu ne wa innama shufaatu fi l mushaa la nga xam ne mooy shufaa mi ngi nekk ci al mushaa mooy ay téere yoo xam ne daa sax ay mbir yoo xam ne daa sax du nekk ci marchandise mi ñuy tuxal wala shufaata shufaa nag du am fii ma qad xusima ñeel loo xam ne dañ koo séddoo ba pare mbokk wax naa la sànq shifaa mooy lan waa ji da ngeen bokk benn kër yéen moo ko kër gi léegi moom mu ne day jaay wallam la nga xam ne mooy wàll gam nar a jaay mën na koo jaay koo xam ne su ñëwee da lay lor islaam ne ah su dee ne da nga koo nar a jaay rek kii nga bokkal kër gi mooy priorité heure bu fayee prix raisonnable attekat da lay imposer nga jox ko ko yéen a bokk benn tool nga bëgg a jaay sa wàll dañ naan la waa ji bu fayee prix bu xel nangu moom lañ koy jox loolu nag yonent bi alayhi salaam dani fekk ne mbir yi séddoowuñ ko mais bu doon kër ga dañ koo séddoo tool ba dañ koo séddoo ba pare waa ji di jaay wàllam loole da ngay gis ne bu dee ne bañ ko defee yàgg na loolu amul problème waaye daal bu dee yéen a bokk mbir mi mu nekk entier kër gi la tool bi la ak lu mën a doon da ngay gis ne waa ji bala koo jaay keneen yow mi mu ko bokkoon yaay priorité ci loolu moo tax mu naan waaw est-ce que li baaxul sax waaw mu ne wala lil di jaar kenn ki nga xam ne mooy dëkkandoo nañu xam ne amul droit ci shifaa boobe na am mooy bu dee ne tey da ngeen a nekk ay dëkkandoo dëkkandoo bi ne day jaay këram ndax yow am nga droit dem ci àttekat bi ne man kat xawma ko muy jaay kër gi kon na ma ko jaay man dañ naan la déedéet dañ naan la déedéet donte ne soo dellu woon lu mel ne mazhab Abu Hanifa ñoom dañ naan dëkkandoo am na droit ci shufaa dem ci àttekat bi ne kii day jaay këram kon man la koy jaay waaye nag la nga xam ni mooy jumhurul ulama shufaa mi nga am ci loo xam ne yéen na ko bokk moom mi ngi noonu mu ne wala tariqin kenn doo def shufaa ci yoon boo xam ne ñépp a ko bokk wala arsati daar kuur bi nga xam ne mooy kuuru kër gi it loolu dafa am xad xusimat bu dee séddoo nañ ko buyuutu bu xad xusimat buyuutaha bu dee séddoo nañ la nga xam ne mooy ay néegam wala fi faxl naxl la nga xam ne mooy tàndarma bu góor ba it bokkul ci li ñuy def shufaa aw biirin wala la nga xam ne moom mooy ay teen yooyu yëpp bu dee ne xusimat dañ koo séddee bu dee ne dañoo séddale isa xusimati naxl bu ñu séddoo tàndarma ya awil ard wala suuf ba wala shufa illa fi ardin wa ma yatasillu biha fi lbinai wa shajar ala kulli xaal mbokk yi mbir la yoo xam ne waa ndakaaru liñ koy jëfee daanaka mën nga wax amul wala néew na amma bu dee ci àll bi léeg-léeg ñoom dañ koy aajowoo doonte ne atte sharia amu fi it ñi xam atte ñoo koy jëfe waaye kenn mën leen ko imposé ci gàttal daal mooy lim ko lim mujje la shifaata illa fi ardin wa ma yattasilu biha min al bina wa shajar képp koo xam ne am na suuf bu ngeen bokk wala am nga ay garab yoo xam ne yéen a ko bokk wala am na ay tabax boo xam ne yéen a ko bokk ëllëg ci biir moom mu bëgg a jël wàllam jaay ko dañ naan kim ko bokkal am na droit ci la nga xame ni ni mooy moom lañ koy jaay duñ ko jaay keneen bi charte mu fay prix boo xam ne bu raisonnable la mi ngi noonu buñ jëlee beneen bind mu ne wala shufaa lil haadir baada sana la nga xam ne mooy revendiquer sa wàll pour ñu jaay la ko ka nga xam ne daa fekkee njaay mu njëkk ma amul droit di ci dellu gannaaw at wal ghaibu ala shufaatihi koo xam ne nag fekkiwul ba ñuy jaay geneen wàll gam bokk wa in taalat ghaybatuhu lu mu yàgg-yàgg ak nekk àllam am na droit dellu ci wa uhdatu shafii ala almushtari la nga xam ne mooy digub délai ba nga xamee ne nii waa ji war a jël alal ja muy shafia ba ma ngay dellu ca ka nga xam ne moo jëndoon wa yuqafu shafia des na taxawal waa ja nga xam ne dafa am wàll fa imma aqasa aw taraka imma mu jël wala mu bàyyi wala tuuhabu shufa shufa kenn du ko may wala tubaa kenn du ko jaay wa tuqsamu bayna shurakaai bi qadari al ansiba dees na ko séddale diggante ña ko bokk ca kemuk cër yañ ca am mbokk bind bi lim ciy wax rek mooy samba ak demba ngi nii ñoo bokk seen benn tool samba xëy ne moom day jaay genn wàllu toolam genn wàllam lim ci moom dembe di ko seetaan loolee da ngay gis ne dañ naan suñ demee ba njaay mi am at amul droit di ci dellu gannaaw loolu luñ ciy déggee mooy tànk amul at am na droit dem ca attekat ba ne hey kii kat tool bi ñu siqoon da koo jaay ca man dama soxla tool bi loolee dañ ko koy delloo allahuma dañ naan teewaay ba mu teey mooy daa nekk ci dëkk ba te yëgul njaay mi loolee même bu matoon at bis bu ko yégee am na droit dem njaay moomee ñu jox ko ko amma bu doon nekk fi ñaari ñi bokk benn kër seen bàyyi bàyyi leen kër masalan ñoo bokk kër gi kenn ki tukki def fa ay at bi mu ñëwee fekk frère bi dagg na kër gi ba jaay wàllam am na droit ne déedéet comme dañ koy jaay rek man la ñuy jaay sama wàll ñu ngi noonu loolu moo tax ba waa ji nga xamee ne nii dafay jënd ko même noonee na xam ne bu dee jënd na lu ay nit moom ca àtte boobu ñu xam ko day xam ni mbir mi du moo ki muy jaayanteel kese waaye ka nga xam ne dafa bokk ak moom it loolu da ci am kaddu looloo tax mu ne ku mel noonee dafa war a dem taxawal ko laat ko ndax yow bëgg nga kër gi pour jënd ko walla man ma daal di koy jënd ba kookee jox ko ci ndigal su ko defee mbir ma doog a doon loo xam ne nii lu dog la li nga xamee ni nag mooy wàll gi nga am yow ci jënd kër ga nga xam ne dañ koo xaaj di ko jaay mu ne yow loolu amoo droit jaay ko keneen ay masalan dem ci keneen na ko ah ki ma bokkal kër gi kat moom day jaay këram day jaay wàllam àq bi ma am ci jënd kër googee kaay ma jaay la ko yow su ko defee nga xam ne du ko mën a jaay keneen ku dul yow mu ne lislaam moom du nangu loolu mi ngi noonu su doon te ne it kër ga ay nit a ko bokk ku nekk dañ ko jox àqam ci solo cër ba nga xam ne da da ko caa am masalan tey ñeenti lañu ñaar ñi jóg ne dañuy jaay seen wàll yeneen ñaar ñi am nañ droit ñoom it ca la nga xam ne mooy chifa te déedéet ñun ñooy jënd kër gi su dee fay nañ prix bu raisonnable lii lépp lan la ci lislaam jublu mooy bañ ki nga xam ne da ngeen a séqoon mu dem jaayi wàllam keneen koo xam ne yéenee nar a bokkaat mbir ma ci benn place ci bu ñëwee da leen di lor loolu nag mbokk jullit comme ni mu leen ko waxee atte sharia la boo xamee ni nii jullit ñi xëy ñi dañ koy jàng pour xam ko waaye jafe na ñu koy jëfe ci li ma xam ci lu mel ne ci capitalité yi waaye nag ñu xam ne àq la boo xam ne islam may na ko képp ko bokk ak nit dara bala koo jaay keneen kakam ko bokkal koo koy priorité te ñu jaay ko loolu moom la ñu tudde shifa mi ngi noonu wallahu aalam ala kulli xaal su doon te ne xam naa lënt na ku ci amoon lenn lu mu ci bëgg leer bala ñu dem ci beneen li ci tax wala sinon ñu dem ci bi ci tax nga noonu ala kulli xaal li ci topp mooy li ñuy tuddee alhibba mu ne wala tatimmu alhibba du mat la nga xam ne mooy ak maye wala sadaqa wala sarax booy génne wala xobus wala loo xam ne da nga koy def waq di ko taxawal illa bil xiyaaza loolee du mën a mat lu dul ne dañ koo jël ca ka nga xam ne moo ko joxe fa in maata qabla an tuhaas su dee waa ji génne ne lu mu maye wala lu mu saraxe ñam ko may wala ñam ko sarax jëluñu ko avant muy dee fa hiya miraasun loolu dañ koy delloo ci miraas ba illa an yakuna zalika fi l marad lu dul mu defan loolu ca feebar ba nga xam ne ca la faatu fa zalika nafizun min sulus su boobaa loolu ca ceeru alal di lañ koy xool ndax dépassé wu ko in kaana li gayri waaris su dee ne dafa nekk ñeel keneen koo xam ne bokkul ak ñay doon mbokk kon fii day wax ci wàllu maye wala sarax mooy waa ji ne woon benn waay may naa la sama oto masalan wala sarax naa la lenn ci alal du ñu xam sarax naa la sama fas wi wala boog mu ne waaw lii day jagleel naa ko daara sàngam jàkka sàngam ci alalam loo xam ne waqf la la cay juddoo na dellu ci moom mu ne lii lépp balaa moo mat ci sharia dañ koy jël ci loxo waa ji wax ji mu ko wax rek loolee du tax mu dagg mu dog noonu mu ko waxee mën na ci dellu gannaaw fii yëpp ne jëluñu mbir mi ci loxoom su doonte ne da koo wax rek man de may naa diw may naa diw nangam sarax naa diw nangam te ñooñu jëlewuñ ko bañ génne ko ci alalu waa ji far waa ji faatu ñu ne su boobaa loolee ñay donn dañuy jëlaat seen alal ndax may balaa dagg fokk kañ koy may da koo jël saraxit kañ koy may da koo jël ndax ka koy joxe ka ko wax heure bu ko neexee mën na ci dellu gannaaw gannaaw loolu mu ni su dee ne nag ca feebaru dee la ko wax loolee dañ koy boole ca la nga xamee ni ni ay wasiya lay doon kon dañuy xool ndax li mu wax ne may na ko waa ji romb na ceeru alalam wala romb ko su dee rombul ceeru alalam su boobaa dañ koy joxe su rombee ceeru alal ji dañ koy jëlloosi ba mat ci ceeru alal ji donte ne li gën a am solo li ñuy jël foofu mooy képp ku ñu wax may naa la wala sarax naa la bala nga ko yeeyoo dëgg da nga koy jël waaye tànk jëloo ko loolee nekkagul moomeel goo xam ne moomeel gu mat la mi ngi noonu bu dee ne lu ñuy mën a jël la bu dee lu ñu mën a jël la fokk nga ñëw jël si këyit ya wala boo ay nit ñëw lañu seede nañ ba xam ne léegi dugg na ci sa wàll su dee ne lu mel ne ay kër laag yu demee noonu su ñuy jël beneen bind mu ne wal hibatu li silati rahim lañ maye ngir jokk ak mbokk aw li faqir ak jokk faqir ya ka sadaqatin mook sarax ñoo yem la rujua fiha kenn du delluwaat ci loolu fa in maata qabla an tuhaaz naam mu ne la rujua fiha mi noonu wa man tasaddaqa ala waladihi koo xam ne dafa génn sarax jëm ci doomam fala rujua lahu ku mel noonu day du mën a delluwaat ci loole wa lahu an ya'tasira ma wahaba li waladihi saghir waaye nag am na droit ci delloowaat la nga xam ne da koo mayoon ay doomam yu ndaw awil kabir wala boog doomam yu mag ma lam yunkax lu dul ne alal ja da caa takk ab sëy li zalika ci loolu aw yu daayan wala mu leblente ko ak keneen aw yuxdisa fil hibati xadasan wala boog mu def changement boo xam ne sos na ko ca la nga xam ne dañ ko koo may mi ngi noonu day wax fii ne mbokk may su dee da nga may say jege ñaale wala nga may la nga xam ne mooy faqir lu mel noonu moog sarax ñoo yem kenn du ca dellu gannaaw nga xam ngeen may may ak sarax may mooy li ngay may nit ki pour kontaanloo ko mën na am moo la ëpp alal fuuf bokkul ak sarax bi nga xam ne da nga koo génne moom jublu ci sarxe ngir sàkku ci ngërëmal yàlla rek moo tax kan koy sarax mën nam sax xamuloo ko ñu ngi noonu mu ne nag may gi su dee ne daa jëm ci jege ñaale wala mu jëm ci faqiir amoo droit di ko nangu loolu day wane ni mënees naa may mënees naa nangu leneen lu ñu jox keneen ku dul ñooñu sarxit day wane ne ki sarxe ba pare du ko nanguwaat rasul sallallahu alayhi wasallam mu ni ki sarxe ab sarax ba pare nanguwaat sarax ba ñu ngi mel ne xaj bi wacc ba pare di lekkaat la mu wacc kooku moom jullit du ko def maadaama bañ ko yéene sarax la amoo droit di ci dellu gannaaw ci lu mu mën a doon mu ne nag xanaa lu dul koo xam ni dafa sarax doomam mi ngi noonu dafa sarax doomam mu ne ku mel noonu it du dellu di jëlaat la nga xam ne moom la ko sarax sarax doom moom du mën a nekk lu dul nii doom ba dafa doon koo xam ne ko majeur la ku teqali koo na ak yow nga gis ni ñàkk na nga boole ko ca la ngay génn ay sarax di ko ko jox donte ne nii bu doon lu mel ne ay zakata doo ko ko mën a jox kon loolu lay wax ci wàllu googu amma nag bu dee ak may su dee ne waa ji daa may doomam dara may nga ko xaalis oto kër mu ne bàyyi bu mayee doomam am na droit nanguwaat lam ko mayoon lu dul ne doom ja alal ja jël na ko jëfandikoo ko ci leneen lu doon ci sëy laam leblem ak lu mu mën a doon waaye daal la nga ko may tànk mi ngi añ ci yow yaay bàyyam yaa ko ko may am nga droit nanguwaat mi ngi noonu am nga droit nanguwaat ko loolee mi ngi noonu boo xoolee bind bi ci gannaaw mu ne wal ummu taatasiru maadaama al abu hayyan yaay it am na droit lam mayoon doomam mu nangu ko fii ak bàyyi doom ja ma ngay dund fa iza maata lam ta'tasir bu dee na bàyyi daa dee yaay amul droit nanguwaat ko wala yu'tasaru min yatimin ndax kenn du jël ca la nga xame ne ni mooy jirim wal yut mu la nga xam ne mooy ak jirim min qibalil ab ñoom koy xool ca côté bàyyi kon mbokk day wax fii ci ni yaay bu dee dafa may doomam dara te mooy doom yi nga xam ne majeur guñu am na droit nanguwaat loolu bu dee seen baay mi ngi dund amma bu dee seen baay dafa faatu ñooñu dañ leen di tuddee ay jirim te jirim liñ nga xis ba may kenn du ko nanguwaat moo tax mu ne jirim ci lislaam ci doomu aadama yi mooy ki bàyyam de la ñuy tudde jirim nga noonu su ko defee kon loolu lay wax ci diggante yaay ak i doomu mu ne nag booy jël bind bi ci topp wa ma wahabahu li ibnihi saxiir lam may ñeel doomam bu ndaw fa hiyaazatuhu lahu jaiz bàyyi mën naa may doom ba pare dencal ko loolu jëlal jëlal ko jëlal ko ko dencal ko ko iza lam yaskun zalik su dee dëkkiwul kër gam ko may aw yalbasuhu wala mu sol yére bam ko may in kaana sawban bu dee yére la wa innama yajuuzu lahu dana ko doon loo xam ni dana dagan ci moom maa yu'raf bi aynihi lañu xam ci jëmmam wa amma alkabiru fala tajuuzu alxiyaazatu lahu bu dee ne mag nag kenn du ko jëlal lañ ko may day wax fii ci bàyyi tey jël doomam may ko benn pàkk masalan mu ne pàkk bi de may naa ko sama doom diw fekk xale la am na droit may ko ko ba pare gardeel ko ko wax nañ la sànq ne ak may balaa mat kañ ko may da koy jël waaye bu dee bàyyi moom am na droit may ko ko ba pare gardeel ko ko loolu kër la am lu mu mën a doon ci li ñuy moom mi ngi noonu mu ne nag day fekk ne bu ko koy gardeel it day fekk moom dëkkewu ko dëkkewu ko beneen kër la moom dëkkewul waaye bu dee ne moo ko dëkke nan la ko koy mayee ba pare dëkke ko loolu kon gardeelu ko waaye bu dee beneen kër moom dana valable day waxit ci yére ca loolu mooy jamono bi yére manqué kon muy waxit ne lañu cay jublu dëgg-dëgg mooy loo xam ne da ko tudd ñu xam ko may naa ko kër sàngam may naa ko oto sàngam may naa ko som sàngam loolu moom da ngay gis na bàyyi am na droit tuddal ko doomam ba pare nag gardeel ko ko nga xam ni bis bu bàyyi deeyoo nit bala ñoo miraas loolu mu waxoon na ko may na ko doom sangam su boobaa loolu dañ koy génne te loolu it mbokk bàyyi am na droit may doomam tànk may ga jurul ak jeng li ngi noonu te jib la neexoon am nga say doom ku ne nga am ko nga am loo ko may man nga sa doom yëpp ku ne nga may ko pakk sa doom yëpp ku ne nga may ko oto ala kulli xaal daal am nga droit may say doom tant que mayewoo may goo xam ne day jur ak jeng jur noonoo diggante say doom Bachir ibnu Nu'man bi mu ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko seedeel ma sama jardin tel may naa ko Nu'man mu ne ko si yeneen doom yi est-ce que may nga leen mu ne ko déedéet mu ne ko ndax bëgg nga ñoom ñëpp bokk nuñ la laayee biir mu ne ko ah kay mu ne ko nag man du ma séede ak jeng loolu it kon day wone bu doon may na yeneen doom yi yonent bi da ko ko teri kon ala kulli xaal bàyyi am na droit may doomam bu ndaw ba pare dencal ko ko bis bu dee ñu génn ko ci miraas bi mu ne bu dee doom bu majeur bu mag nag la nga ko may moom doo ko ko dencal maadaama may nga ko responsabilité am jox ko ko mu génn say loxo loolu mi ngi noonu comme ni ñu la waxoon ci àtte sànq ak may balaa mat fokk kañ ko may da koy jël lañ ca génn rek mooy xale yi nga xamee ne nii nekkaguñu ñoo xam ne ñu majeur la loolu kon bokk lay wax ci wàllu may googee mi ngi noonu dama xamul ndax mbokk yi am na lenn lu leen ci lënt lu ñu bëgg a leerlu avant ñuy dem ci yeneen bind insha allah li ñu doon wax nii léegi waaleykum salaam wa rahmatullah ndax bu dee ne dafa jël ay doomam yu ndaw may leen kër te mayul ñeneen ñu mag ñi su boobaa dañuy seet su dee ne moom gis na ne doom yu mag yi kat majeur nañu am nañ seeni kër ñii ay xale lañu amuñu fi ñu sës loolee mu jël may leen ca doom yu mag ya gisuñu lu dul ne seen bàyyi amul genn jeng bu mu def ci ñoom loolu dina ngay gis ne islam du tere loolu islam du tere loolu islam la muy tere rek mooy loo xam ne ak jeng la te mooy day wane ne ñii li tax mu defal leen ko mooy dañoo nekk ay ndaw waaye defu ko ngir parparloo ci leen te mooy ñee nekk mag ba majeur bu doon ñoom it da leen koy defal lu mel noonu l'islam ci wax dara mi ngi mel ne xale yu ndaw yu toll ci jàng bàyyi fayal leen seen jàng mën na mu paase leen sax ñu dem Europe tout ça là la ko waral mooy ay xale lan ña nga xam ne mag nañ paase nañ loolu paase nañ loolu loolee kon islam da ca wax dara wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam waaleykum salaam wa rahmatullah naam ndax mi muy dund ah da kay ah de waaw di nga may ndax bàyyi bu dee dafa may doom ba pare di ko ko dencal loolu da koy seddaloo ay nit da koy seedaloo ay nit wan na ko may naa la nangam ñu seedaloo ko ay nit dencal gam ko koy dencal da koy dencal bis bu majeur mu jox ko ko su dee ne dafa faatu it ña nga xamee ni nii ñoom ñooy ña seede woon mbir ma xam ne kat lii bàyyi mayoon na ko diw loolu kon na doon bind na ko wala mu seedaloo ko ay nit mi ngi noonu fokk loolu am ca wallahu subhanahu wa taala alam naam naam naam naam waaw seede bi moom mooy preuve bi même bu doon yeneen doom yi yëguñu ko bu amee seede yu maandu yu taxaw ni ñun kat seede woon nañ ne diw mi mayoon ne diw lii na doon loolu ci testament la na doon loolu ci may la na doon loolu ci ay bor la maadaama am na ñaari jullit yu maandu ñu seede ne lii amoon na su boobaa da ngay gis ni doom yu yéca des buñ ko yëgul it du tee may googu day wéy mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam nekk ci kaw jënd waaw appartement waaw di ko jaay waaw waaw waaw waaw ah na ala ko ndax kii jaay appartement ca ki ci suuf bu bu mabbee ñëpp ñooy ñàkk ala kulli xaal suñu borom moom moo santaane la nga xam ne moom mooy am njaay moo joxe ndigal ci njaay ku nekk ci njaay nag njaay mën na am assurance njaay mën na am risque loolu moo tax ba ki nga xam ne dafay jaay moom këram bu doon ci cosaanu sharia dañ naan ki am kër lépp lu ko féete kaw moo ko moom loolu moo tax ba borom kër tey am na droit teg quatre étages jëm kaw amma su dee ne nag dem nañ ba ci jamono nit ñi di jënd par appartement loolu yi tamit da ngay gis ne kii maadaama moo moom këram ni ko lislaam mayee mu luyee kër gi étape étape noonu la ko lislaam mayee mu luyee mu jaay ko bi ñuy jàng suñu bunt bi passé dañuy wax ne lépp lu daggana jaay daggan naa luy lépp lu daggana luy daggan naa jaay su ko defee waa ja nga xam ne dafa nekk ca kaw appartement ba ca suuf bu daanoo këram day daanu moom bi mu koy jënd da koo jënd sous risque loolu mooy mbir bi allahu subhanahu wa taala alam na ah ah exactement non exactement non exactement exactement comme loolu loolu mu ci wax it lu ci am solo la mooy la chaque année ñi koy jaay daal ci jël matuwaay ca yow mi nga xam ne yaay jëndit wareef la bala ngaa jël sa alal di ko def ci ci ci ay appartement nga ut expert yi expert yu la xoolal ba xam ndax lii nga dina jënd moom am na garantie wala amul garantie almuhim daal ki am ay këram am na droit jaay ko en entier am na droit jaay ko en appartement wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal buñ jëlee kon bind bi nga xam ne moo ci tege mu ne wala yarji'u rajulu fi sadaqatihi góor nag du sarxe ba pare di nanguwaat lam sarxe wala tarji'u ilayhi illa bil miras sarax ba nga génne mënul delluwaat ñëw nekk sa moomeel lu dul ne danga koo donn ca kanka saraxoon wala ba'sa an yashraba min labanin ma tasaddaqa bihi dara nekkul ca nga naan ca meewu la nga sarxe wala yashtari ma tasaddaqa bihi la nga génne saraxit amoo droit dem di ko jëndiwaat ca kanko sarax wal mawhubu lil iwadi naam la nga xam ne dañ koo dañ koo maye ngir ñu delloo kaka maye leneen lu dul loolu imma asaaba al qiyama qiima imma mu daal di joxe lu tolloo qiima ba aw radd al xibba wala mu delloo lañ ko joxoon fa ida faatat su loolu wéyee fa alayhi qiimatuha su boobaa qiima bi rek lay joxe wa zalika lii lépp nag ida kaana yura annahu araada sawaaba min almawhubi lahu mooy bu dee ne dafa gis ne kii kat dafa bëgg ñu delloo ko jox ko ca la nga xam ne da ko maye woon mi ngi noonu mbokk kon fii bind bi lu mu ciy jàngale rek mooy nit ki sarxe ba pare amoo droit di nanguwaat sarax bi amoo droit di ko jëlaat même bu ñu la ko mayee amoo ci droit mi ngi noonu mu ne lenn dong la mën a dellu si waat ci yow mooy nga donn ko masalan sa frère ngi nii may nga ko dara bi nga ko mayee dara yàlla dogal mu daal di nga sa sarax nga ko dara bi nga ko saraxee mu dee nga bokk ci ñuy donn nga donn ko wala kum mën a doon ci doomu aadama yi la nga saraxe daal miiras dong ngay tax mu daganaat ci yow mu ne nag bu dee ne da ngaa sarfe woon ay nag masalan am nga droit moom di naan ca meewu nag ya noonu it lay waxee ne ki nga sarax dara nga wëlbati ko gis ko mu koy jaay amoo droit dem di ko jëndaat ci moom amoo droit dem di ko jëndaat ci moom ak lu mu la ko mën a jaayee muy indi nag beneen ka beneen cas mooy ñi nga xam ne dañuy may ca la ñuy maye dañ caa siintu dara mi ngi mel ne ndawtal yi suñu jigéen ñi def rek mooy bi ñuy ñëw di la ndawtal lu ci bëri jubluwuñ ci dimbali la dañ cay jublu bu wax bu ñu xewlee yow it nga ndawtal leen loolu it da ngay gis ni bari woon na ci ay aaday arab yi ñoo xam ne dañuy def loolu asalan dañuy ñëw ci koo xam ni wóor leen borom alal la ñu yëkkati dara jox ko la tax ñu yëkkati jox ko ñëpp xam nañ ni kii daa bëgg mu am lu mu ko jox ne nag ku mel noonu bu dee ne yow wóor na la ne li tax mu may la may gii jubluwu ci may la ko daa jublu rek pour am loo ko ci tegal fokk yow da nga koy delloo lu mel noonu mi ngi noonu wala nga delloo ko la nga xam ne moom la la jox loolu kon mooy may yi nga xam ni dala koo may ngir xam nga ne daa jublu ci leneen mooy nga delloo ko bu dee suñ jigéen ñi da ngay gis ni léeg-léeg ñu ndawtal seen moroom am xew dem yégal ko gisuñu ko bu dee ñu ca sant caam dañ naan la ba ma munti tegal it delloo ma la ma la joxoon yaa ngi de ndax xam nañ ne ba ma lay ndawtal si pour dimbali la mooy ëllëg suma xew la nga ñëw ndawtal ma loolee kon lay wax ci may gu mel noonu moo tax boo demoon ci yeneen téere dañ naan may gu mel noonu nit ki am na droit bañ koo jël ki ñëw di la may ci wóor na la may gi lam ci jublu mooy nga tegal ko ku mel noonu am nga droit bañ koo jël amma bu dul nag may gu mel noonu lépp luñ la may danga koo war a jël jullit al karamatu la turat ki nga xam ne nii lu mu néew néew dooleeg lu ñu mën a kii maadaama dafa jël may la may gi dañ koy jël ki gënoon a tedd ñëpp mooy suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loo ko nit masaan may mu jël ko ki nga noonu sallallahu alayhi wa sallam kon loolu lay wax ci wàllu googee bu ñuy continuer mu ne wa yukrahu an yahabba li baadi waradihi maaluhu kulluhu sib nañu nga jël sa lenn ci say doom jël alal yëpp sa alal yëpp may leen ko wa amma shay'un min zalik sair bu dee ne nag lenn ci loo xamee ni nii lu ñuy toléré la mooy lu yomb la mooy nga jël lenn ci sa alal may lenn ci say doom wala ba'sa an yatasaddaqa ala al fuqara dara nekkul ci nga jël sarax génn sarax ci faqir yi bi maalihi kullihi lillah alal jépp nga joxe ko yàlla tax nga jox ko faqir yi islam bañut loolu mi ngi noonu mbokk kon day wax fii rek lu mel ni liñ doon junju sàmm nga jël sa alal ji nga am xool sa lenn ci ay doom may leen ko islaam da ngay gis ne du nangu lu mel noone ca masalan ya waajoo xam ne nii amul woon lu dul benn kër mu daal di jël kër gi daal di koy may leen ci njabootam bàyyi ñu ci des mu ne loolu da ngay gis ne lu ñu sib la ci jullit di def loolu lu ñu sib la ci jullit di def loolu lan la ci jublu lu ñu sib la mooy la mën a jur la nga xam ne mooy ab noonoo ci njaboot gi waaye niñ ko waxe woon sànq bu dee yow xam nga ci sa njaboot ci ne ñii kat ay mag lañu am nañu alal soxla wu ñu kër gi ci ñii ñoom dañoo néew doole du jur problème islam du wax ci loolu dara mais bu dee dafa nar a jur problème islam day bañ loolee may gi it nañu xam ne mooy may nga leen ko bi ñuy dund ñoo ko moom amma bu dee la da nga ne su ma dee nañ ko jël loolee kenn du ko dogal lépp loo ne su ma dee nañ ko def mu jëm ci ñuy doon islam du nangu loolu islam du nangu loolu lu dul ñi bokk miraas bi yépp dëppoo ci donte ne da nga ne sama njaboot gu saw gi day su ma dee nañ leen bàyyee sama kër gi islam du nangu loolu ndax dañuy doon amaa nañ njaboot gu mag bu ñu dëppoo ne ah nañ def li bàyyi wax amul problème li bàyyi bàyyi lépp buñ dëppoo woon mel ko kenn ci ñoom amul problème waaye bu dul loolu dañ koy miraas amaa nag wax ji muy wax fii mooy bàyyi ñu ngi dund jël ci alalam may lenn ci ay doomam loolee da ngay gis ne bu jurul problème islam du wax ci loolu dara mu ne it alal ji nga am yépp mën nga koo jël sarax ko ay fuqara loolu islaam dana ko nangu it waaye bi charte fekk ni amoo njaboot goo xam ne da nga leen war a taxaw ca it doo dem di ñaan keneen yow waaye bu doon te ne am nga njaboot goo war a taxaw islam du nangu nga jël sa alal jox lépp fuqaraaw yi waaye yow boo demee ba gis ne tey sa njaboot ñoom ñépp ñi ngi liggéey yor seeni bien am nañ ay soxlaa luñ nga dara yow am nga droit alal ji nga am nga jox ko fuqaraaw yi mi ngi noonu te fekk ne yàlla rek moo tax loole moom da ngay gis ne islam du wax ci wàllu googee dara waaw xam naa ñu jël suñu bind bu jëkk bu mujj bi rek mu ni wa man wahaba xibba wa man wahaba xibba képp koo xam ne may na ak may falam yaxuzha almawhub jëlu ko ka nga xam ne dañ ko koo may almawhub lahu xatta marida ba baa waaja ka may woon feebar ay maridal waahib mu feebar aji ka ka may woon aw aflasa wala boog mu doon ko perte ba sisir ko amatul dara fa laysa lahu xiina idin qabduha su boobaa amatul droit di ko jël walaw maatal mabhub mawhub su dee nag dafa faatu ka nga xam ne dañ ko koo mayoon mawhub lahu kañ ko mayoon kaana li warasatihi alqiyaamu fiha dana ñeel ña koy donn ñu taxaw ci loolu alal waahib ca ka nga xam ne mooy aji maye as-sahih ju wér jë ñu ngi noonu day wax fii ne waa ji woo wax ne benn waay may naa la sama oto bi masalan may naa la sama oto bi kam ka may na jëlu si ko ba waa ji feebar feebaru dee walla boog waa ji dem ba ñàkk amatul dara ay même oto ba boole nañ ko ci lañ fayee ay borom waa ji moom kooku moom day perte ndax moo paase fa mu ko waroon a jëli maadaama waa ji toll na ci xaal boobu ku mel noonu koy dañuy annuler may gam ko mayoon léegi contraire bi mooy waa ji waxoon na benn waay may naa la nangam loolee tuddal ko ko kooku nag jël siwu ko farfaatu maadaama saxoon na ña nga xam ne ñooy donn waa ji am nañ droit ñëw ca nga xam ne moo ko ko mayoon jël sil ko ko maadaama waa ji dafa faatu loolee mbokk lay wax ca wàllu googee nga xam ne kon moom la yàlla dogaloon ñu war koo jël ci bind yooyee mu aju ci li ñu tuddee shufaa ak sarax ak ak may wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain bu dee ne ay doom yu mag yi ñu ngi liggéey cam am ay soxna ndax loolu mën na ko may droit ala kulli xaal islaam dafa sant bàyyi mu maandu ci diggante ay doomam rasul sallallahu alayhi wa sallam mu ne ittaqullaha wa'dilu bayna awlaadikum ragal leen yàlla ngeen maandu seen diggante seeni doom su ko defee bàyyi lépp loo xam ne mi ngi koy xool di ko def ci njabootam day dem ba gis ne lii day may defal ma samba bu doon ma dem ba it dama ko koy defal ca loolu mooy maandute mooy ku nekk nga jox ko loo xam ne nii àq la bu doon keneen moo fa toll it nga defal ko loolu moo tax ñu ci doon joxe misaal tey ci xale yi toll ci jàng yaa ngi leen di fayal lu cher mën nga leen a paasal lu cher te defaloo ko ñu mag ña jire ñoom paase nañ foofu su ko defee ñu mag ñi bu dee ñoom ña ngay liggéey ña ngay ak seeni kër ñi ay xalal la ñu amuñu dara la ngay def te ñoom ñu yëg ne lii kat bàyyi ji def defu ko ngir lor leen su boobaa lislaam du ci wax dara ci gàttal daal règle générale bi mooy bàyyi na maandu ci njabootam maandu te goo xam ne ku nekk ci ñoom dana yëg ne lii bàyyi defal diw de place bi mu taxaw la waaye bu doon maa fa taxaw yi dana ko def waaye par par loo taxul mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam ah non bu may wax bi may wax naan njaboot maa ngi ci jublu soxna ku mën a doon c'est-à-dire que ne ne bi may joxe misaal mooy waa ji nga xam ne mi ngi alal amul kenn koo xam ne nii chargé na ci kawam ca moom mi ngi alal mais ñi nga xam ne ñoo ko wër ñëpp ay doom la ñu doon wala ay soxna la ñu mën a doon ñoom ñëpp soxlaaluñ ko dara ku mel noonu alal ñëpp mën na ko jël sarxe ko bi charte moom it du dem di yelwaan kenn loolu moom la ñuy wax mais bu dee ne moom ci boppam dafa am ñenn ñi muy taxawe loolee nekkul lu ci am droit te it bu dee it la gën a rafet it mooy alal bi nga am l'islam day wax ne la gën ca lañ cay sarxe mooy ceer ba waaye bul jël alal yépp sarxe ko dafa fekk nag dafa am différence entre lu dagan ak lu ñu recommandé mooy mbir bi dagan na ça ne veut pas dire ko ne def ko gën na waaye dagan na boo ko defee amu ci benn bakkaar sa alal yépp sarxe nga ko parce que amoo kenn koo jël responsabilité mais bu dee recommandé moom dañ naan heure booy def sarax it bul pas sa ceeru alal noonu la yonent bi dénkoon Saad ibn Abi Waqaas ci histoire bu gudd ba mu koy bëgg a wax ne damay sarxe sama alal yépp wallahu subhanahu wa taala aalam naam naam bismillah naam naam naam waaw non may maye maye ak saraxe ak hadiyu sarax dañ koy jox faqiir jublu ci ngërëmal yàlla mën naam xam nga comme xamoo ko bu dee may yaa ngi koy may say kóllëre say am di jàmm loole da ngay gis ne mi ngi gën a nekk ci ña nga xamee ne nii da da nga tolloog ñoom ci martaba ngeen di mayante hëdd yi mi ngi gën a jëm ci kilifa ngi gën a jëm ci koo xam ne nii ak kilifteef la nga yaakaar ci moom ne kii kat kilifa la nga jël hëdd yu nga may ko comme yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ko daan génnee hëdd yi daanaka hëdd yu ak may sorewuñu sarax nag mooy la nga xamee ne ni moom la ñuy def ca yàlla rekk a tax ka ngay sarax doo ko xam su ko defee may mën nga caa jublu ëllëg ci sibir mu may la hëddi yu tamit la nga cay jublu mooy ka nga koy defal hëddi yu imma mu ñaanal la wala boog mu am place bu mu la teg waaye daal yépp nekkul lu sori yow tey moo nekkoon bunt bi ñu doon jàng tey sarax moom amoo droit di ko jëlaat ci nu mu mën a doone hëddi yu am nga droit di ko jëlaat bu dee ne da nga koo may ay doom am nga droit ñu ma ñu delloo la ca lu mel noonu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam ah ah a rasul sallallahu alayhi wa sallam dane kullu maarufin sadaqa nee na bépp njëkk boo def sarax la tudd su ko defee sarax bi nga génne sarax jëm ca faqir loolu sarax la mais ki nga may ca bi nga koy may yaa ngi ci jub rek ngërëmal yàlla kii sama xarit la sama nijaay la sama nangam la nga jël ko may ko loolee nga ko may it tuyaaba la lay jural yonent bi sama ni kullu ma'rufin sadaqa bépp njëkk rek sarax la loolu it dañuy wax ci hëddu yi hëddu yu ak may amul différence lu dul li ko borom xam-xam yi di séddale rek mooy may mi ngi nekk ci ñi ngi méngool hëddu yi nag mi ngi jëm ci ay kilifa na doon ñooñu ay buur lañu ñooñu ay borom yi xam-xam lañu na doon ñooñee say kilifa lañu ci wàllu famille loolu lañ tuddee hëddi yu am na bu dee may mooy ñi nga siqal kii waaye ñaan yépp moom benn la différence bi rek mooy fu mu jëm waaye jullit lépp lu mu def jublu ca ngërëmal yàlla da ko cee am looloo tax bokk ni li ëpp ngërëmal yàlla suñ caam bu jëlee dépense di joxe wala muy fay gaz wala muy fay ordonnance yooyu ngay dépense sa famille yépp da ngay gis ne wareef la ci yow waaye tuyaaban bu la la lay ñeel su ko defee kon tur yi moo wuute waaye pay gi moom bu sellee rek lépp tuyaabu la lay jural wallahu subhanahu wa taala alam naam naam wa ala kulli xaal ndax waa ji tukki mu julli woon këram moom kese wàññi julleem ak mu dem ca jàkka ja julli julli mbooloo loolu lan mooy la ci gën loolu boo demee ci leen mazhab Malik ñoom dañ naan nga julli woon sa kër wàññi mooy la gën waaye nag bu ñu xoolee ci doxalinu sunna la gën a dëgër mooy borom xam-xam yi wax ni dem ca jàkka ja mooy la gën ndax yonent bi alayhi salaam da doon wax ne kii dégg nodd na wuy ji te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daawul deñ mbooloo di jóge fu nekk di ñëw Madina di ko fa fekk si te ña daan ñëw ñëpp dañ daan bàyyi fañ daal ñëw di julli moom ca jàkka ja donc boo demee tukki it boo demee ca jàkka ja xamal ne mooy la nga xam ne mooy la gën am maa nag boo julli woon sa kër yéemoo ka nga xam ne daa dëkk ci dëkk ba amul ngànt yéemoo moom ndax yow musaafir nga waaye bu dee la gën moom nga dem matal ànd ak imam matal sa rakka te li it loolu mooy la nga xam ne tamit mooy la gën a dal xel waxoon ca ni da ngay gis fa bi téere yi gën a tasaaroo fii lu bëri dañ koy def dem ca jàkka ja bu imam ñaari ra- amee ñaari rakka nga sëlmal na am loolu am na ñu koy def waaye nag li gën a dal xel mooy la ibnu abbas waxoon saxal ko te moo di ne kii julli ci gannaaw imam dafa war a matal ne imam matali loolu dal mooy la gën a dal xel wallahu subhanahu wa taala aalam waaw yaakaar naa mbokk mu ne naa doy loolu ba yàlla delloo suñu fi te ñaan yàlla subhanahu wa taala li ñu fi def li ñu fi wax lépp lu ci jub yàlla na yàlla nangul ñu ko ñu jëfe ko lu ci njoom te yàlla na yàlla jéggal ñu ko ci xamal ñu ko wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain